seen beneen actu du jour internet de 24 actu bàkk ba jim na lañ nara a waxtaane tey mu di mbas mi lëmbe réew mi di covid 19 ñu gis ne bésu tey bi communiqué bi la mu daal di xamle rek moo di ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ci ay test yoo xamante ne ni amal nañ ko juróom fukk yi ak juróom ñoo ci daal di ñëw positif maanaam ñoo ci daal di ñëw amee jàngoro ji di coronavirus juróom-ñett fukk yi ak juróom benn di ay cas contact juróom-ñeent yi di ay kaa communautaire muy cas yooyu nga xamante ne nii moo jaaxal askan bi ci zone ya mu feeñ bokk na ci zone de captage am na benn Castor am benn benn tali am benn Gibraltar am benn Golf Sud am benn Touba am lu toll si ñeenti cas fukk ak juróom-ñeent ci ay cas moom la ñu am moom la ñuy woowee cas grave am nañ ko fii ci Sénégal ña ca service bu réanimation bu hôpitalu Fann ak ci hôpitalu principal ci xayma bés bi nag mën nañoo jàpp ne bi mbas mi duggee ci réewum Sénégal ak léegi kaa yi mu ngi toll si ñetti junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett moom la ñu am positif fii ci Sénégal ci loolu junni ak juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn nañu fanweer ak juróom-ñeent ñoo ci ñàkk seen bakkan ñi nga xamante ni ñu ngi leen di saytu ci lalu hôpital yi ñu ngi toll si junni ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. ñu wax ci leneen soxal loolu wàllum société fële ci jàmm gën si Kambaaw lañuy ñuy jubali lu metti moo fa xew benn citoyen sénégalais bu fa dëkk moo fa ñàkk bakkanam toll na si ñetti ñetti fan ca hôpital bu Pikine ginnaaw test yañ ko defal dafa daal di ñëw rek positif maanaam amee jàngoro ji di coronavirus ñu jël lépp luy disposition ngir denc ko ci cimetière yu jàmm gën waaye askan wa yeewoo sa diwaan boobu dañoo daal di baare yoon wa daal di yàq ambulance bu croix rouge ak yu sapeur pompier fi mu nekk nii agent yu croix rouge ak yu sapeur pompier ñu ngi nekk en danger ba tax ña ngay wax autorité yi ñu trouver benn solution ngi jafe-jafe yi tàmbalee am si cimetière yi mën a daal di dakk ëttu yëglekaay bii di Seneweb moo génne yooyu le information beneen information buñ jot jëm si Amadou Sall di doom ci ki nga xamante ni moo di njiitum réewum Sénégal di Macky Sall ñu loolee nekkul lu am moom Amadou Sall mi ngi dakaar ak jabaram te mi ngi si jàmm bu baax a baax ëttu boobu boobulee di dakaar Buzz ñoo koy daal di génne xamle ko moo di Amadou Sall mën nañoo jàpp ne kon demul France mi ngi fii ci Ndakaaru Njaay jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum finance di Abdoulaye Daouda Diallo aljuma ji ñu génn dafa gisante ki nga xam ne moo di Aliou Sall ginnaaw Aliou Sall nag ba ñu ko testé moom dafa daal di positif ci Covid 19 bi ba tax ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Daouda Diallo daal di nay def test bi waaye dafa daal di ñëw rek négatif maanaam amul bile jàngoro di Covid 19. te diwaanu Petersen ñu dañuy daal di jubali ñaari nit lañ fa gis ñu daal di ñàkk seen bakkan kenn ki dañ koo gis mu faatu si 16 fële ca rue Blaise Diagne ci côté parking Orca ci bi muy wàcc. Mamadou Diallo ñu gën koo xam si njool di jaaykatu ndékki foofee ca diwaan boobu moo daal di xamle yile kàddu keneen ki dañu ko gis si suuf niki démb bi ay vingt 22h jotee maanaam 10h ci guddi ca même rue ba way di Blaise Diagne ba waa police sax ñoo ko daal di gis daal di ko yëkkati kon mën nañoo jàpp ne ñaari corps yooyee fa faatu police ñoo leen daal di yëkkati daal di nañuy ubbi ab enquête toftal ci ab autopsie ñu bàyyi rek ba xam fan la wànnante di mujjee ki gëttam lépp loo xamante ne ruusani na ci ci ay information 24 euh, actu dina leen ko toppal ba xam ñaan ñooñu leen nan moo leen faat ak nan lañ mujjee ci boobu lee enquête ginnaaw coowul xale yooyu ñuy woowee fils à papa ci couvre-feu bii ñu nekk ca di ba kenn ci ñoom ñàkk ca bakkanam par overdose maanaam dafa daal di dorogewu ba dorog ba ëpp moo daal di rayoon benn xale bu jigéen foofulee ca Almadies ci bisu korité bi yeneen xale la ñuy gis sa cité mixta nar a nekk épicentre scandale sexuel à répétition foofee ca cité mixta buñ sukkandikoo ci témoin vidéo soirée boobu ñu ngi koy partager jamono ji ci réseaux sociaux yi nekk na vidéo bi ñuy gën a partager ci réseaux sociaux yi ba fi mu nekk nii xale yooyu police teg na leen loxo en attendant ñu identifier xale yooyu waaye ba tey vidéo yaa ngi gën di law ci réew mi ndaxte réseaux sociaux yaa ngi koy partagé bu baax a baax ñu daal di koy jeexee ki fi nekkoon ex animatrice bu Sen TV di wuyoo ci turu Rangou moom la ñu teg loxo ndiki démb ci àllarba ji turam dëgg di Ramatoulaye Bari ñi ko teg loxo diwaa waa ak fukk ak ñaar ci ay invité ci benn journée rencontre adulte buñ sukkandikoo ci journal bii di Libération enquêteurs yi dañoo placé seen compte Instagram sous surveillance ginnaaw annonce d'une rencontre masque off entre adultes gi amoon démb ci àllarba ji yamook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar weeru mai diggante dix heures a jëm dix huit heures yooyu nag ci leen daal di découvert lien bi leen yóbbu si site pornographique bi Rango créé woon ak ñenn ci ay copinam jamono ji nag Rango teg nañ ko loxo dañuy xaar rek ba xam moom tamit fan lay mujjee ak coow loolee nga xamante ni nii def na ko jëm ci wàllum site boobee ñu woowee pornographique lii rek moo firi seni woon ci ay xibaar dig daje bu ëllëg ak jàmm